Allah siyaar ñëpp kenn ku ne si turam ak di jiital si nuyoo bi Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi loolu te di ñaanal Serigne Cheikh Jëm Fall xalifa mu yàgg fi loolu te di ñaanal Serigne Abo mbakki moom sëñ Fall mu yàgg fi loolu tamit te di ñaanal Cheikh Abdoul Karim Mbacke ibnu sëñ Fall borom makaami axlaa borom tedd ngay jukkee ñu koy ñaanal fi mu bëgg a liggéey liggéeyu maamam ji suñu borom kattanal ko may ko wér ak kattan ba mu àggale ko foofu liggéey bi nag Baye yu ñoo dajaloo di liggéey sëriñ Touba nekk ay taalibi Cheikh Abdoul Karim Mbacke ibn Serigne Fall doon ay Baye Fall yorool ko fi liggéey moom Serigne Abdoul Karim Serigne Fall ñu koy liggéey di toog si daayira yi di ko daayira bu maagal jotee ñu boole lu am indi ko daayira bu bu ne du jóge fu ne di ñëw gédeek forage ak garage daaroog fépp ci Touba rek ak dëkk yeneen dëkk yeeg dëkkaat yi xam ne sëñ bu bu génnee wax ak ñi duggaat beneen daal di ñëwaat mu génnaat wax ak ñi duggaat loolu nag xaw a nekk lu doy waar mu daal di woo jëwriñ Ibrahima Mbengue mais daan ni ko daayira yi ni ñëwandoo te kenn ku si nekk boo ñëwee ma wax la li nga xam ne li ma waxoon keneen ki laay laay waxaat ñi toog te ngeen ko boole def kuréel fédération kenn ku ne di daayira si goxam di denc addiyaam di xool bis bu muy daayira ñu génn daayira bu at mu jotee ñoom ñëpp ngeen dajaloo waxtaan kenn ku si nekk génnee keesam li mu yor ngeen boole addi yi mu doon benn ngeen dajaloo def benn mbooloo ma génn ñaanal leen kàddu yi doon benn ñun tamit ñu daal taxawoo xam ne ñun sëñ Karim moom lu mu ñu wax rek xam na ne jot na jot na ñun tamit ñu jug teg foofu suñu tànk dugg si gox yi kenn ku si ñu waxtaan sëñ Abdou Karim dafa naan fii ab ko fi nekk doole ja nga yor maa ko roof saa boo demee ba yëg sa bopp ma rocc ko kon yàlla bu naaw liggéey bii nag moom sëñ bi ñun na ngeen ay waxam rek la ñu déglu moom dafa ni daayira ñetti nit dañ ciy bokk nee na neen na ko am Pastef loolu da ciy bokk ak koo xam ne du am dara ci Pastef ak koo xam ne tey lay am Pastef suba du am Pastef waaye doo dàq kenn ndax ki am Pastef mën na yóbbaale ki amul Pastef ki amul Pastef mën na mën na ki am Pastef mën na yóbbaale ki nga xam ne léeg lay am Pastef léeg-léeg du am Pastef nanu jàpp xam ni fa nu sëñ bi jële fam ñu jëmee moo ko gën tey ba nu nekkee suñu bopp kenn daaw ñu dékk ay micros sax di ñu laaj lii ñu am nii moom jëmmam ji la bay nuru Baye Fall di roy maam Cheikh Ibrahima Fall di ko liggéeyee Serigne Touba kase nanu sax sa liggéey Serigne Touba rek te moom sëñ Abdou Karim Serigne Fall ñuy mu yàgg lool te dem ba nekk aw doj barke Cheikh Ibra dañuy wax rek jërëjëf Cheikh Abdou Karim Mbacké ibnu Serigne Fallou waaw ngir lii lépp rek moom la ndax ban koy tàmbali ci ndigalam ci la fédération bi sosoo ndax dayra bu ne da nga daan dayra ci sa gox a ah, mu xam ni jamono mi ngi ñëw te dana xat loolu mu xalaatal ñu xalaat bu rafet bii xalaat bi nga xam ni tey ñun ñëpp ak nooflaay lañ ci lañ ciy yëg ndax dayra bu ne bu doon seppeeku di ñëw di ziare coono la ci ñun ah moom it dana doon coono ci moom kon bu ñu boolee ànd doon benn say di koy liggéeyal dayra bu ne di dayra ci goxam weer wu dee benn dayra toog mbooloo mëpp ñëw ca gox ba fekk si dayre boobu ñu màggal fa liggéey bi saafonte a ah, bu ko defee ñooñu kat saa ne bu ñu génnee di ñëw danañ xam ni kat ñii fi ñuy yëngu kat ah lu lu fi ñuy yëngu ñu leen reconnaître la ñu ndax boo dee xool kuréel gi li ci ëpp ay soppe sëñ kër Karim Mbacke moom sëñ Fallou ñoo ci nekk ci daayira bi ci loolu lañ ko taxawee tey ba mu doon ab lim ci ci ci ci daayira yi ñu taxawal fédération bi bañ koy tàmbali nag sewoon na loolu waaye nag dañ koy sante sëñ bi. ngir kat ci kàddoom dañuy dégg mu naan tàmbali bu sewee kat da ciy am xel mu dal te tàmbali bi daa sewoon loolu ñu dem ba tey daayira bi yaatu loolu kon dañuy wax rek jërëjëfe Cheikh Abdoul Karim Mbacké ibnu sëñ Fallu ngir lim ñu bëggaloon lépp tey gis nañ ko ñu ngi santaat bu baax a baax a baax sunu kàddu yëpp ay kàddu sant la rek ginnaaw bu loolu jàllee ñoo ngi ñaanal ñin daan àndal liggéey bi te tey gisatuñ leen ñoo ngi leen di ñaanal suñu borom yokk seen leer taasuñ seen barke Mbàkke ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaanal ndax bi ñu booleek jëmm ji di Ibrahima Mbeng keroog bi ñuy ñëw si yow di la jox suñu bopp moom mi ngi toogoon foofu nga woo ko mu dikk nga dénk ñu ko mag Mamour Karim mii boobu ba tey masuñoo wax ci boppam dara sa ay rek mu nekk donga laxasaay di tarbi ni la dann rek diis gann nag oyof tooy nag mënoon wane boppam te wanewul boppam jël liggéey bi lépp ak lii ni mu réyee valeur bi ay ñoo xam suñu ay moroomu wayjur yi jigéen lan ak sunu ay moroomu wayjur yu góor suñuy mag suñu ay rak tekk suñuy loxo ñu si nab nabi mu nuy jàppale di waxtaan ñun guddi di waxtaan ñun bëccëg di wax fu liggéey bi toll ak lu mu bari bari bëri bëri am leen yar am am ay teggin ñun ñu koy liggéey en tout cas ñoom Cheikh njaay ñii ak ñoom El Hadj Fallou ak kuréel fédération Magaam Akhla bu Touba bi ak ñoom Abdou saw ñii. Mbacke ñooy sant jëriñ Ibrahima mi bu baax a baax bëgg nga téyel ñu ko bu baax a baax fa ñëpp àgg si góor yàlla yi mu romb foofu ndax moom bu bu bu mel ne noonu rek ñun danañ teg foofu suñu tànk ndax dafa am fu nu bëgg dem fu nu bëgg àgg te danoo mas a toog gédde dégg si ay kàddu nga ni rëbbkat lu mu mën a mën a mën a jam bu diirul dara du jam dara. ñu ngi leen di ziare bu baax kenn ku nekk turam ak santam Mbàkke ñu ngi yëkkati nuyoo ak ziar mbooloo mi toog di fédération kuréel Makaarim Axlaaq Touba jëwriñ Ibrahima Mbengue mi jiite ko ak soxna Kumba Ñaŋ Mbàkke ñu di la seere rek ni mbooloo ñu baax a ngi ni Mbàkke ñu am pastéef ñoo xamante ni depuis ban duggee ci liggéey beeg léegi mësuñoo yokkat mësuñoo dellu ginnaaw lan wone woon ba ñuy ñëw rek ba léegi loolu rek la ñu wone bëgg la sopp la te di la liggéeyal rek ñu ni ma woon nag boo taxawee ci kanamu sëñ Abdou Karim ne ko ñett rek lañ bëgg nan gudd fan nan wér nan am poos doolay poos bu ko defee dinañ jékku ndigal yi saa boo wootee ñu am wér ñëw ñu am kàttan mën laa liggéeyal di làmb seen jiba nag di ci def loolu rekk di sant rek nag ndax Mbàkke yokk nañ bu wér a wér a wér ndax sunuy jikko dafa yokk ñun bi ñuy ñëw ci yow sëñ gaynde mi mi ngi koy wax ay abosomzo yu baax lan doon lan defoon raser suñu bopp daray yi Baay nekkul si ñun ñu ñëw jébbul ci yow nga woo jëwriñ mu ñëw nga ni ko jàppal ñaari Baay Faal ngi nii kon Mbàkke yow yaa xam li xew xam li xew nga kon Mbàkke jataay bi jataayu sant la rek ñun dañuy sant dañ lay sant bu baax ndax Mbàkke ku sant rek ñu dolli te mbooloo mi kenn ku si ne boo ko joxoon kàddu sant rek lay def ndax ñoom ñëpp a yokk yokk nañ si jikko yokk nañ ci xéewal ñoom ñii ñëpp nag kon ñuy dagaan daal képp koo xamante ni yaa ngi fi di soxna mbàkke bu fi jógee na am borom kër bu baax bu ko attan góor yàlla yi amul soxna nan am soxna yu baax yoo xamante ni duñ leen gàllankoor fenn ci liggéey bi ñi bëgg tukki nan tukki te xéewal yomb leen ñu ñu def ko ci liggéey bi rek waaw ñi ñu bëggul tukki nekk fii it na leen xéewal yomb lool te ni gaañ ñu defaat ko ci liggéey bi rek Mbàkke ñun yow rek benn bët la ñu am yow lañ koy xool benn nopp la ñu am yow lañ koy déglu amaatuñu leneen. Mbàkke ñu ngi lay ziar bu baax kàddu yi nag daanaka mënoon naa koo bañ a jël sax ndax li ma fa war a wax yépp xale yi wax nañ ko ñii. gannaaw li ci man yaa ko ci def ba ñu gis ko di yéemu kon li ci ñoom ci yaw la bawoo ndax man dey bi may ñëw ci yow xottu kese laa yaa def ci man li tax nit ñi di ma gis di am cofeel ci sunu jëmm ji muy makaarimu axlaax ci yow la bawoo mu mel ni kàddu yi du gudd ndax sëriñ bi lii dafa mënta ñàkk rek ndax mbooloo mi nga gis daanaka bisub Kazu Rajab bii rek bu kas Rajab jubsee la am pour toog ak yow ngir taafu ci sa barke jëmm ji waaye ñii de toll nañu foo xam ne mënoon nañ dajale xéewal gi jël ñaar ñii ne leen dam leen yóbbu ko te toog seeni kër waaye yow weer wi ñàkk cee toog yow dafa wóorut barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke yaa gore mbake yaa baax yow amuñu sa pay barki Serigne Touba ñu ngi sant ñi ci jàpp ci bés bi yëpp sëñ son bu Jóob mii mbuur la jóge di sa taalibe saa su ne nii lay def ànd ak njabootam ak xaritam ñoom sëñ Omar soxna Koura ñoom ñëpp ñu ngi nii toog ne ma man de damay indil sama sëriñ àddiya waaye damay xaar ba ngay ziyaare Mbàkke jëmm ju baax a ngi nii. keroog ba ñu wanalee ba tey lépp lu muy def day yëkkati téléphone woo ma dama Ibrahima nan lay def lu jëm ci si yow ñaanal ko bu baax ak sëñ lay bàmba sekk bi nga xam ne dafa dégg yëf yi rek feeñal ci yéeneem ci ndox yu tedd yi nga xam ne ndox yi da cee bind turu kuréel gi lii ku xam xam ne lu cher la. Laye Bamba Seck mi ngi nii moom nga ñaanal ko ak ñëpp rek mënumaa lim ñëpp di ziar ñii ñu baax gor yu baax yi sa ginnaaw sëñ Mbacke ñang mi ngi nii man xam nga lu ma ko tuddeem solution l'homme aux solutions léeg-léeg kër gi ñu am fi ay xat-xat yoo xam ne dama koy jëlee ne ko sëñ Mbacke kaay génnee ñu ci mu ñëw génnee ñu ci génn génniwin bu sell bu rafet mi ngi nii yow rek la bëgg. kii dalaa yàgg bëgg balay sa yàgg naa koo xam si jëmmam ji moo tax ma fonk gis nga ko sëñ Galas Jatara sëñ Saliou Ñang ñoom ñëpp ñu ngi nii sëñ Mor Talla Mbeng moom bu nekkee fii Mbeng laa koy santale Mbàkke jëmm yi dañoo xam sa mbaax gi xam nga yow fi mu nekk sag mbaax pour nga xam ko lu jafe la. dañoo wax ni képp koo xam ne tombum lu baax ñor na la. sa xol dana ci sedd fim ne ñi nga xam ne bi ngay sos lii fekkiwuñ ko sax seen xol mi ngi nàyyi ndax dafa neex ci xol nag lii lu neex a ngi nii yow lu tax li tax du diis ci yow ndax ba nga nee bërit xam nga fi muy toll xam nga fi mu jëm li sa maam waxoon ni li may def nit nit mbooloo nit topp nit su ma ko defoon ci garab nit ña toog ci garab ga te duñ fa jóg waaye du tax nga jàppandaa yomb de moom moo mel noonu waaye jël nit tofal ko mbooloo ñu topp ko di ko déglu lu mu yëkkati ñu ne bisimilaay yombul de yàlla mi moom lépp sax bi mu ñuy toppaloo rasulullaay daa wax wax a wax a wax يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم topp leen yàlla topp yonent bi ak ñi yor seen mbir daal bu ngeen demoon nag tey fa in tanaasatum fi sayin farudduhu ila allahi wa rasul kon yàlla xam na ne xëccoo danay am bu demoon ba xëccoo ci dara delloo leen ko ci yàlla ak ab yonentam loolu mi nga bëgg yàlla mi nga bëgg a wone mbooloo topp la ni mu jafee kon yow mbooloo mi topp la ànd ak yow danga xamoon nu muy demee xamoon digg bi xamoon mujj gi waaye ku gis mbir mii sa xol dana ci sedd sëñ Ibrahima Mbeng mii nga yar ko ndax dañuy waxtaan lu bari man ak moom dañuy waxtaan lu bari Ibrahima ku ponctuel la et le gars sérieux kàddoom doo ko dégg lu bari te lu wax njariñ lay bëgg mu doon ko man de mosuma dégg ci kàddoom ab safaan man néew néewuma keneen nag waaye man de mosuma ko dégg dafa am benn bis mu jël ma yóbbaale ma ci jokkoo xam nga baatub jokkoo rek moo bi lu doy war la jokkoo mi ngi tekki ñoo xam ne bëgg nañoo taqalikoo te duñ taqalikoo man noonu laa ko déggee ndax kenn ku ne mënoon naa ne ci barabam dafa woote daayira Ibrahima di jokkoo ak yow waaye du tax mbooloo mi gëndoo waaye dañuy toog ba benn bis buñ toogee fukki fan juróom wala weer ñu def baas yu toll nii daanaka ndax am na bu ma yóbbuwoon fii keroog yow la tàggu. jël ma yóbbaale ma ci jokkoo bi mbooloo mi ñëw na tirim mu jël kàddu keroog li ma njëkk neex ci ay waxam lim fi mu tàmbalee ndax boobu la sëñ Basiiru Baara wàcc sëñ Ibrahima Mbengue dane lii de bu ma xamutoon ne liggéeyam sëñ Tuubaa la du leen woo tey ndax damaa bëgg ngeen fàttaliku ni sëtëb Serigne Touba moo fi bawoo ñu di ko ñaanal tey waaye ginnaaw ndigam mbiram Serigne tubaa la mën naa dugg ci loolu waaye nañ ànd ak yar ak teggin loolu rek bi may jël kàddu saraa ci lu yà lu sori waaye jël kàddu yëpp dama koo jël jooyal la ko ndax yaa ko def ndax yaa dem ba kenn ci mbooloo mi mënutul ñàkk a bàyyi xel kilifa ndax yaa bàyyi xel kilifa nu ko kenn bàyyewul xel fonk say kilifa bëgg leen te doo fakkatal kenn kon sa njaboot noonu rek lañ mën a mel mu dajale leen wax leen loolu daal ne ma galas ma ne ko mbàkke mu ne ma bis bii de bu fekkoon fekkoontoon ne xew-xew bii amul su ñëwee nga jommi xam ne sëñ kër yi may kenn loolu la ci teg man du ma fàtte ay wax du ma nettali nag lu ñaaw waaye lu ma nit wax lu baax te ma jàpp dama koy jàpp dama koy téye ndax damaa xam ne bis dana am mbooloo mi buñ jël benn baatub Ibrahima Mbeng rek di ko jëfandikoo ba mu leen jaaxal waaye bu ñuy wax ci Ibrahima Mbengue na mbooloo mépp jàpp ni mi ngi mel ni pyramide birig ba ca kaw moo jokkaloo birig ya ba ca suuf ndax mbooloo noonu la ko yàlla dogalee mu composé woo ci sëñ Ibrahima Mbengue liggéey bi rafet na lool ndax li nga wax ni ñoom toll nañ foo xam ni mënoon nañoo jël liggéey bi jël ñaari nit ñett teg ko ci seen loxo indi ko ci sëriñ bi sëriñ bi jël liggéey bi te kenn doo dégg kenn saxat waaye nag dajaloo gi daa baax dajaloo gi aljamaahatu rahma dajaloo rawatina dajaloo ci weeru sëriñ fàllu wi nga xam ne ci la sëñ fàllu feeñ nga ànd ak mbooloo mi liggéeyub at ngir waajal bisub sëriñ fàllu bi ngir bëgg a teral waajuru sëñ Abdou Karim bi nga xam ne booba bi ma ko xoolee laa xam ne maam jaara mat nay ndey ku ne waaye ndeke mat nay maam ku ne ndax sëñ Fallou tax sëriñ Fallou Mbacke mel ni mel ci senegal àgg ba ne man maay senegal xoolu yooyu risque boo taxawee ci kanam àdduna ne maay Sénégal lépp senegal day wadd dal sa kaw yow sëñ Abdou Karim bi nga toog ni fii moom amul xejj amul seen na ñëpp ñëw nga xam ne kàddu ko sa ba waajur wa waxoon moom nga waxaat waaye danga cee wàññi tuuti ngir war ma da leen déglu ay wax de war ma ma day am ci kaw kàddu nga bëgg a wax lam waxoon nga xam ne lenn la waaye nga war maal ko am loo ci wàññi tuuti ndax fii nee na amul xej amul seen fii kenn ku ne mi ngi teew fii ñiñ bokkulul diine sax léeg-léeg gis fu fi man loo mënul ndax lan ci pas-pas sëñ Ibrahima Mbengue mii li muy nettali léegi muy ay karaamaat bu ko doon nettali fii ba suba du fi jógee man mii bu ma doon nettali fii ba suba du ma fi jógee te man wóor na ma ni at yim def ci yow defuma ko ci te man li ma fi def gis naa fi lu ne fii barki démb nit ñëw na fi ne la damaa am ku ma ameel bor te topp na ma lool ba jatabal ma tegoo ci ludul xaaral ñu yóbbu la ci bu mag bi nga añ ba noppi mu ne la sëñ bi teg ma ñaanal ma wéy kooko fa mu tolloon a tax wax naa ko barki démb ne sa waajur bi moo taxaw képp koo xam ne yàlla mën na koo taqaleeg mbir mu ko solal mu sukk ci kanam yàlla na ko dimbali ñëpp yow yàlla duma ñaan lool du ñaan kenn ku dul yow yow it sa garab gi boo fi toogee danga naan yow yàlla du ma ñaan kenn ku dul li xayrika la nasko illa halwara amra wa ma in lana illa ilayka altija dahra sëñ Fallu Mbàkke nee na yow yàlla du ma jàmbat mbiri mbindee fi kudul yow aw ma wéeru waaye benn budul yow yàlla na ko jàmbatal loo jàmbat ma faj mu ne ko famin mustakin faqaran am na kuy jàmbat ak ñàkk yàlla na ko jàllal mu ne ko wamin am na kuy jàmbat balaa yàlla na ko jàllal mu ne ko wamin mustakin daynan am na kuy jàmbat bor yàlla nag koo bëgg ma njëkk faj aajoom mu ne ko wasaa minhum ahra njëkk la faj boroog ki leb sëñ Fallu nee na boo lebee jàngoor yëpp a ngi ci yow nee na bor moom boo ko sa yor tawat nga tawat yëpp yow nga nekk fii ci ndindi gii di waajalee bisub sëñ Fallu bi nii nga koy waajalee def kër gi nii nga ko def ngir waajal bis bi kër gi li fi nekkoon desul ginnaaw de waaye bis bi mooy dem nga ne kër nga ne bis bi fu mu dem danaa fa yóbbu li ñuy màggalee bis bi ñëpp di teg seen bët. adduna bi ko ñëw nga ne la sëñ Fallou daa am nu mu toll ci man sëñ Fallou ñëpp xam nañ ne sa waajur waaye am na noo demee moom ba boo ne daa am nu mu toll ci man nit ñi am lu ñu yëg nga xam ne damay faral di wax ni garab daa am lu muy symboliser symboliser ci diine na ngeen fàttaliku ne ña làqoon ngërëmul yàlla ca saaba ya ba leen yàllay gërëm ci ron garab lañ toogoon di jaayante yàlla mu gërëm leen ci ron garab gi. laqad radiyallahu anil muminina is yu bàyyi oonaka taxta sajarati fa alima ma fi bi yow it nga ñëw ba ci roon garab gi fii mënoon nga fay def mbaara muy sedd guy waaye li tax nga dàq garab def ko loolu xam-xam la boo xam ne war nañ cee jàngee garab dafee yàgg gi fan nga ko samp ci suufu sëriñ Fallu fi sëñ Fallu daan nekk di fi jaamoo yàlla di fi fajee aajo yi mu def fi sanc ko nag. ci ndigalul Cheikh Ahmadou Bamba def fi jaamu yàlla gu ne sa jàkka ji fi nga ko teg sëñ Fallou jullee fi ñetti yoon def fii muy ab tookëram ay tànkam du fi tege muy noyyi di jël eerub jaww ji moo tax barki dem mën a oxygène fadilie moo ne fii ku fi ñëw yàlla jox la ci nga toog fi tey li nga wax nit ñi fii doy na waar da nga ne sëriñ Fallou ngi nii jàkkaarloog yoon xam nga li nga bëgg a wax nit ñi maa ngi nii jàkkaarloog yéen damaa bëgg ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax. sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu bu baax ak dégloo. di leen siyaare bu baax a baax. sëriñ bi nee na yàgg na koo wax. nee na am na ñoo xam ne ñii sax. xam naa ci ñi nga xam ne ñoom dañ fi nekk bis bu nekk. nee na xam naa ci ñi nga xam dañ fi nekk bis bu ne. daanaka wax ji ñuy dégg ma di ko wax tey. xam naa di ji dégg ma di ko wax tey. bu subaa moom la ñuy déggaat. bu subaa moom la ñuy déggaat. xam naa day am na ci xam li na am na ci ñu xam li ko waral. li ko waral li ko waral. waaye am na ñu ko xamut. waaye am na xamut li ko waral. xam nga li ko waral. xam nga li ko waral. ma leeral leen ko. xam ko. ba ngeen xam ko. mooy. mooy. ñi may waxal tey. ñi may waxal tey. ak ñi ma waxaloon démb. ak ñi ma waxaloon démb. du benn. te li may li may wax. te li may wax. ma ñëpp xam ko. bu fekkoon te ne ñi fi ñëw ñëpp dañ fi ñëwandoo benn bu fekkoon ñi fi ñëw ñëpp dañ fi ñëw ne benn yoon. bu ma waxee wax ji nga xam ne wóor na ma ñëpp dégg nañ ko. ma waxee wax joo xam wóor na ma ne ñëpp dégg nañ ko. bu bu subaa. bu ñëwee bu ñeneen ñëwee. ma wax leen ma wax leen leneen. waaye benn nopp boo xam ne benn wax boo xam ne danga ngaa bëgg ñëpp dégg ko da bëgg ñëpp dégg ko te ñëwandoowuñ bu boo ko waxee ñee dégg ko tey boo ko waxee ñee dégg ko tey bu subaa bu ñeneen ñëwee moom nga leen di wax bu subaa bu ñeneen ñëwee moom nga leen di wax ndax wax ji ndax wax ji day jenn wax joo xam ne day jenn wax joo xam ne kenn ku ne. kenn ku ne. war nga koo dégg mooy. mooy. bëgg Serigne Touba rek. bëgg Serigne Touba ak jàpp ci moom. ak di ko liggéeyal. ak di ko liggéeyal. te loolu. te loolu. am aw yoon. am aw yoon. wuñ cay jaare wuñ cay jaare ak Serigne Fallou mi nga xam ne. ak Serigne Fallou mi nga xam ne. moo sanc ndindi gii. moo sanc ndindi gii. di taalibe Serigne Touba boo xam ne. di taalibe sëriñ Touba boo xam ne. bëgg Serigne Touba bëggeel goo xam ne. bëgg Serigne Touba mbëggeel goo xam ne. kenn mënu ko ci. ñu war a xam nag. ñu war a xam nag. sëñ Fallou moomu. sëñ Fallou moomu. mooy sëñ Fallou mooy koo xam ne. Mbakke mooy koo xam ne. na am mu am. na am mu am. du am du am. moo ko moom. moo ko moom. ci aw turam lañ ko dégg. ci aw turam lañ ko dégg. kooku nag. kooku nag. bu ngeen ko defee xarit. bu ngeen ko defee xarit. di ñëw ndindi. di ñëw ndindi. di ko fekk si. di ko fekk si. xam ngeen ne yéen it def na leen xam ngeen ne yéen def na leen xarit. Ibrahima Mbengue. mi Mbengue mii. ñetti million la fi joxe léegi. ñetti million la fi joxe ba léegi. ca suba ba léegi. ñu ngi waaj. ñu ngi waaj. tàngaay wi. tàngaay wi. naaj wi. naaj wi. xataay bi. xataay bi. lépp. ñu boole ko. boole ko. loolu koo deful xarit. nee na loolu koo deful xarit. du la ko jaral. du la waaye xam ngeen ne day. waaye waaye xam ngeen ne day. sëriñ Fallu. koo ko def xarit. ku mu def la xarit. mu def la xarit. xaritoog gën a wóor. xaritoog sëñ Fallu lu ko gën a wóor. Ah, ku gis lu ko gën a wóor. Ah, téel ñun dañoo ngi jàpp ci. fas yéene xaritoog moom ba ëllëg. nangeen xam ne. na mbeng li ngeen wax ci moom. li ngeen wax ci moom. bari na bariwul. bari na bariwul. waaye. waaye. man de. man de. man damaa wax ne bariwul. man de man na ma wax ne bariwul. ndax li ma xam ci moom. ndax li ma xam ci moom. li wax ci moom. dafa mutul sax asaka ji. ndax damaa xam biiram. ndax damaa xam biiram. xam biteem. ñu yàgg lool. ñu yàgg lool. ba may soog doxal. liggéey bii. ba may soog a doxal liggéey bii. di ko sos di ko sos. ca la àndoon ak man. ca la àndoon ak man. ba bisu tey. ba nam ànde woon ak man. ci pas-pas. ak cofeel ak ug nite. dafa yokk waaye dara wàññi. ci. yàlla dogal. yàlla dogal. mu ànd ak xale yoo xam ne ñoom itam. ay ay boroomi pas lañu. mu ànd ñoom di liggéey. mu ànd ñuy liggéey liggéey bu rafet. ñoom it nga gis waxtu yoo xam ne. léeg-léeg nga gis waxtu yoo xam ne. am na yuñ ca war a dox. am na yuñ ca war a dox. Ibrahima nga xam ne Ibrahima mii moo ko war a dox. waaye. waaye. bu fekkee nekku fi. waaye bu fekkee Ibrahima nekku fi. wala ma di ko def loo leneen. wala ma di ko def loo leneen. loolee mu waroon a def. loolee mu waroon a def. da leen koy sant. da leen koy sant ñoom. xam naa ne Ibrahima xam na mu bu baax. xam naa ne Ibrahima moom xam na mu bu baax. sama sama sama sama sama bëgg-bëgg. Ibrahima sama bëgg-bëgg. amul sañ-sañ. amul sañ-sañ. sant ko koo xam ne. sant ko koo xam ne. wóor na ko ni. wóor na ko ni. du ko defee ni ma ko bëggee. du ko defee ni ma ko bëggee. kon bu leen ko dee sant rek. kon bu leen ko dee sant rek. wóolu na leen na leen. te gis naa ne bu leen ko sante te gis naa ne bu leen ko sante it. kóolute gam amoon. kóolute gam amoon. ci ñoom ba sant ko sant leen ko. ba sant leen ko. dama koy dama koy gis seen doxalin. dama koy gis yéen ci seen doxalin. kon nag yéen ñëpp sant naa leen. ñi ngeen àndal itam. ñi ngeen àndal itam. bu ngeen jógee da ngeen woote lu baax. bu ngeen jógee dangeen ngeen woote lu baax. ku woote lu baax kay. ku woote lu baax kay. ku bëggul lu baax. ku bëggul lu baax. kon ñi ngeen woo ñu wuyu leen. kon ñi ngeen woo ñu leen. dafa fekk ñu bëgg lu baax dafa fekk ñu bëgg lu baax rek. di nii yéen. moo tax mbooloo mépp. moo tax mbooloo mépp. ak yéen. benn ngeen. benn ngeen. ku baax ku baax. lu baax woote lu baax. ku ko wuyu ku bëgg lu baax mhm. waaye nag. waaye nag. duñ ko rëccu de. duñ ko rëccu de. mukk danañ fanaan guddi yoo xam ne. danañ guddi yi bànneex lay doon. te dana leen wóor ne. jotaay yii. jotaay yii. li muy tuut tuut. li muy tuut tuut. ci lañ ko jëlee. moom da bu boobaa dana leen wóor. bu boobaa dana leen wóor. danañ ko xam bu wér. <coughs> ah waaye sëñ bi xaritoog sëñ Fallou ku ne xam na ne njëriñ rek a ci ne. ah waaye sëñ bi xaritoog sëñ Fallou ku ne xam na ne njëriñ rek a ci ne. koo xam ne na am mu am baat boobu rek dafa doy. koo xam ne na am mu am baat boobu rek dafa doy. na am mu am du am du am. na mu te muy lu wér. te waaye koo koy xaritoog moom waaye koo koy xaritoog moom doy na. kon nag. kon nag. ñoo ngi ñaan ci barke boroom Touba. barke borom Touba. barke barke njabootu Serigne Touba yëpp. barke njabootu Serigne Touba yëpp. li ngeen bëgg. ci lu baax lépp yàlla defal leen ko. ñi ngi ñaanal kilifa gu tedd gi. nga xam ne mooy sunu yaakaar. muy Serigne Mountakha. Cheikh Ahmadou Bamba. yàlla yàggal ko fi bu baax. may ko wér lim bëgg a liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba lépp mu def ko di ko ñaanal sëriñ Abo Mbàkke sëñ Fallu moom it lim bëgg a liggéeyal alxaaji Fallu lépp mu def ko ak wér tañ fekke ko di ko ñaanal njabooti ñi nga xam ne ñoo yor. ñi nga xam ne ñooy ko ñaanal ñi nga xam ne yor kër yi njabooti Serigne Touba yi. maanaam xalifa yi. ak seeni rak. di leen di itam nag. leen dénk nag. su ngeen demee. su ngeen demee. góorgóorlu ci fonk lu ngeen gënoon a góorgóorlu ci fonk dëkk bii. ngeen yokk ngeen yokk ko. ndax dëkk ndax dëkk bi kat. dëkk boo xam ne Serigne Touba ci suuf sax. dëkk moo ne ci suuf sax. Hmm? Hmm? boobu dëkk day. ku bëggal sa bopp jàmm ju wér. ku bëggal sa bopp jàmm ju wér. day sax day sax. war nga koo fonk. war nga foo tegee sa tànk ci suuf si rek. fàttaliku ne. fàttaliku ne. Cheikh Ahmadou moo ne ci suuf. ku ko ci fàttewul day. boo guddeew fan. mujjug teraanga rek ngay teraanga rek ngay am. ak tiyaaba yu rëy. yoo xam ne bu ëllëgee. boo dajeeg sunu borom. boo dajeeg sunu borom. sant rek ngay def. sant rek ngay def. bu leen koy fàtte de. te Serigne Modou sa Dieng wax na lu mel noonu. nee na Makka. nee daan lim gën a ñàkk. buñ daan lim ñi gën a ñàkk. ci àdduna ci la ñuy boole màkk. ñu dem a dem ba bu a woomal. ñu dem a dem ba dem bu ñuy lim ñi gën a woomal. màkk màkk ci lay bokk. sëriñ Modou ne loolu dara waralu ko. sëriñ Modou bu sa jàng ne loolu dara waralu ko. lu dul ku baax ka tëdd ci seen suuf. seen suuf sa rek. kon nu it bu nit bu nu amee ko baax ku mel ni ku tudd suñu suuf sii. nanuy séntu ne. séntu ne. la dal waa Màkka. dal dana nu dal. loolu sëñ moodoo ko wax. te sëñ moodu lu mu wax. kàddoom. moo gën moo gën sëñ Fallu. moo kàddug sëñ Fallu. dara wutalewu leen. fekke ko te du yàgg lool te du yàgg. nee yàggaay bu sori de. yàggaay boo xam ne yàggaay bu yam rek la. sëñ doo ko wax de. sëñ Modou man wóor na man lu wax moom. boo ko seetloo sax. boo ko seetloo sax. ba mu ko ba mu ko waxee léegi yàggul. waaye gaañ ñi ngi tàmbali mel ni ñuy kër fay ñent bi te na fi ne jamono ji gaa yaa ngi tàmbalee corporate corpañante la leen nga dégg naa barab sànga am na am na fii am na essence. mooy lim loolu dara da ciy feeñut. loolu li ko waral mooy loolu dara da ciy feeñut. li sëñ duy wax bu ñëwee dëgg. waaye li sëñ Modou wax bu ñëwee dëgg. kenn du kenn du faale sa morom ci loolu. ñëpp koy ndax day te ñëpp koy yëg ndax booba day doy. fi ne day xeeñ rek. fi ne day xeeñ rek. kon dal noo ngi nii. noo ngi nii. ndindee ngi. ndindee ngi. ngi. lépp luñ ragal. lépp luñ ragal ak dégloo. yàlla buñ ko gis. ko gis. lépp loo xam ne suñ njariñ la. lépp loo xam ne suñ njariñ la. te sori. yàlla na yàlla ko yàlla nu ñoddil. ba agsi. Touba nag. Touba nag. day dëkkub taalibe. day dëkkub taalibe. te feeñ na. ci doxalinu nit ñi. ci doxalinu nit ñi. xam nga ne sëñ Touba moos. li ko yàlla defal. ci kàttan ci kattan. sañc dëkk bii. sañc dëkk bii. am ñu luubu. am ñu luubu. ñu fi ne. ñu te kenn saafarawu ko. te kon xam ngeen ne Touba lewet. loolu waaye nag lu ëpp tuuru. waaye nag lu ëpp nag tuuru nag. ñu ñu ñu jubadi ñi ne Touba di di yàq rek. ñu jubadi ñi ne Touba di wax yàq rek. nañ régler seen seen bopp. am na waaju doon wax ak ku baax. ba pes ko. loxo bi daal di wàcc ba suuf. loxo bi daal di wàcc ba ci suuf. mu ne ko ah, yow kat war nga maa dimbali. sama loxo bii. mel nii. te jógee ci pes bi te jógee ci pes bi nga xam ne moom laa la pes. xam naa ne yow rek yaa ko mën a saafara. mu ne ko ah déedéet. man bi ngay wax ak man. man bi ngay wax ak man. xaw ma woon ni sama lex bi ku ci pes. xaw ma woon ni sama lex bi ku ci pes. mel nii. woon ni ku ci pes mel nii. yàlla la. loolu kay yàlla rek la. bu doon man kay. doon man kay. nga xam bu doon man kay nga xam ne sama man man la. kon kay du ma bàyyi ba nga pes ma di la def nii. kon kay du ma bàyyi ba nga pes di la def nii. pes ni nga ni nga mel man lu may jëriñ. maa ngi métti te pes maa ngi fi mu ne pes maa ngi métti ci man lool. bu doon man kay ba nga bañ maa doon man kay la def nii damay fexe ba nga bañ maa pes rek laay def. moo tax nit. moo tax nit. teg ko foo xam ne. léeg-léeg nit yàlla teg ko foo xam ne. moom sax jëm ba xam du ko xam. Touba la mel. nag noonu la mel. te sëñ Fallou sax mas naa wax kàddu yu mel noonu. mas naa wax ne Touba mas naa wax ba yàq fi waaye kenn mënu fi wax ba yàq fi. loolu rek mooy dëgg. koo gis. koo gis. muy dox. muy dox. benn jéego. yàq boo xam ne yàq la ci jublu. du mujj fen du mujj bu yëf ya xumbee. bu mu niru dara. yàgg fi rek doo gis mu mujj fenn. dara. loolu sëñ Touba. ak mbaaxam. ak lim liggéeyal boroomam. romb na loolu. kon daal ñun bu demee nun nan lawet rek ci ñëpp buñ toroxal kenn buñ saaga kenn buñ yéene kenn lu bon yaru yaru ami teggin rek ku ne ku sa kër nga lewet ci njaboot ga. nga lewet ci njaboot ga. njaboot ga njaboot ga it. nañ lewet ci yow. nañ lewet ci yow. bu ko defee kër ga day lewet rek. ab dëkk nag. ab dëkk nag. bu kër yëpp lewetee. bu kër yëpp lewetee. dëkk ba lewet. ba lewet. am réew nag. am réew nag. bu dëkk yépp lewetee. bu dëkk yëpp lewetee. réew ma lewet. réew ma lewet. kon ku ne. kon ku ne. na nga fexe ba yaru. fexe ba yaru. ami teggin. lewet lewet baax baax am ngor am jom am ngor am jom waaye topp topp ci dëkk bi xas nit ñi rek waaye topp ci dëkk bi xas nit ñi rek di leen sosol di leen sosol koo ci gis mu mu mu jaar yoon woo xam ne koo ci gis mu jaar yoon woo xam ne yoon njariñ ci day mujj am njariñ ci moom. nga fas koo teqatal. nga fas yëpp nañ ko bàyyi. ak ak ñaaw njortu yi. bari na. bari na. taal yoo gis muy tàkk. bari na taal yoo gis muy tàkk. te te te te la ko taal. te la ko taal. boo demoon ba xam la ci biir dëgg-dëgg. boo demoon ba xam la ci biir dëgg-dëgg. du doon dara du lu dul ñaaw njort. loo xam ne. loo xam ne. na ko fooge na ko foogee. ak lam doon. bokkul. lool nag la nit ñi man lool. di yàqalante rek. jigéen ñi. jigéen ñi. nañ góorgóorlu. seen kër yi seen kër yi nekk. di fa sëy sa borom kër ne nii sax nga demee ne dafa farle kii. bu sa nii sax nga defee dafa farle kii. bu jëmee ne koo ko defee dafa farle kee. doo mel ni ëkk ah boo amee kër am xanaa doo mel ni ëkk na tekk rek faaw ngay wëreelu kay. yàlla fi indi ñoom ñëpp. faaw ngay wëreel ndax yàlla fi indi ñoom ñëpp. xanaa doo leen fi indi ñoom ñëpp ba noppi. xanaa doo fi indi ñoom ñëpp ba noppi. ki ci des mel ni andi ko fa. ki ci des mel ni andi ko fa. ah déedéet. jigéen ñoom itam. te fonk seen doom yi te di leen yar. te jubóog leen. di leen yàqal seen i xalaat. te jubóog seen borom kër yi bañ di leen yàqal seeni xalaat. ndax boroom kër kët. ndax borom kër kët. dafa fonk lool ak njabootam. dafa fonk lool ak njabootam. fonk ay soxnaam. fonk ay doomam. fonk ay doomam. boo ko perturbé boobu bi day dootoo dootu xam te yow li mu li mu ne. xam ne kii euh, xaw a guddee wala mu am lu muy lijjanti te kër gaa tax da ngay gis koo xam day guddee ndeysaan kër kër yi te kër gi rek ay tax guddee lool ñëw soxna si utal ko problème bu rëy rëy te problème ba kat la tax mën ko la la muy moom moo tax. te kat problème bi li tax mu indi guddee gi li ko war a lépp li lijjanti moo tax. wala sa yow sax sa lépp ci la ne. ca lay lekk ca lay naan ca lay solu ca lay solu. ba mu ñëw nga takkal ko ay pot ngeen mu ñëw rek nga takkal ko ay pot rek. ah bu bu bu dem boo ko defee noonu ba léegi dematul. boo ko defee <laughs> noonu ba léegi ñemetut a dem. lam doon andi. lam doon indi. dootu ñëw dootu ñëw. bu ko defee nga nekk fi naan <laughs> góor gi amul dépasse. bu ko defee nga nekk fi naan ah góor gi de tey mu dépasse. fekk yaa ko téye fekk yaa ko téye. bàyyi leen loolu. ànd leen ak waaye bàyyi leen loolu leen ak seen sago. ànd leen ak seen xalaat ànd leen ak seen xalaat. góor ñi itam góor nañ bàyyi fu fu jigéen ñi jëm. nañ bàyyi fu jigéen ñi jëm. seeni soxna wala seeni doom wala ku leen jege. seeni soxna wala seeni doom wala ku leen jege. ñu di ko gëstu. ñu di ko gëstu. lu ne ñu xalaat ko. lu ne xalaat ko. am na benn tubaab bu ma sa ñëw fii. na am na benn tubaab bu ma sa ñëw fii këram. di jaay ay appareils yooyu nga xam ne. boo ko di jaay caméra surveillance. waaw. boobu kër gi ma ma mu ngi soog a noppi tuuti rek. nee bi kër gi doo ko noppi ab tubaab dafay ñëw di jaay caméra surveillance yooyu nga xam ne boo ko takkee sa kër fu waaye toll nga di ko séen. te tubaab bi li fi indi. caméra yi caméra yu efficace la tubaab France la jóge woon. bi tubaab bi ñëwee wax a wax a wax ku mën a jaay la nag. nee na tubaab bi. tubaab bi wax a wax ba defee ne tey moom am na client nag. ma ne ko ah yow da ngaa bëgg a tas sama kër. kër gu rëyee nii. fu ne nga def fa appareil. góor ñi dama cee bari le. góor ñi dama cee bari le. jigéen ñi ma bari le ci. jigéen ñi ma bari le ci. bu ñaar taxawee fee sax appareil bi ci leen. bu ñaar sax taxawee fee appareil bi jël leen. nga ne àdduna tukki nga ah, tukki ne keekee bee bu ma jóg. mën naa am sax. fekkee mën naa am sax. ñaar ña taxaw kat ñaar ña taxaw ci yow rek lañ doon waxtaan. sag mbaax oh. ak ak ak lu defar sa mbir. te kat mën naa am ñaar ña taxaw ci yow rek lañ doon wax sag mbaax ak lu defar sa mbir. te yow wax ja doo ko dégg. image bi rek ngay gis. mën na ko yóbbul. ma ak sama kumpa rek. yow yóbbul bàyyi ma sama kumpa rek. seet. man kumpa doy na ma jéem maa lu ñutu dara. man daal maa ngi fas yéene doon taalibu Sëñ Tuubaa rek. ak ku fi ñëw. ñu bokk di def lu baax rek. ak di ko waxante. dooni taalibe rek. kon daal maa ngi leen dénk Sëñ Fallu rek. wax naa leen fi démb ne bu ngeen gisee sëñ Tuubaa dama koy tudd lu bari. dañ koo fab ñun ñëpp teg ko fee rek. dañ koo fekk fab ñun ñëpp teg ko fee rek. moom mu beru moom. gaañ yi ñëpp rek. ak ñoom sooy bu jóob ñële. ak Baye Goro Seye ma leen xulóokat. ak Baye Goro Seye ma leen xulóokat. di sëñ Naar Seck nee na maa ngi gërëm sëñ Naar Seck Mële. ak gaañ yi ñëpp rek. waaye yii yëpp dañ koy waxante lu baax rek. nee lii ngeen gis ma koy wax dañ ko war a waxante ngir bëgg a seq lu baax rek. waaye fi mu ne lii. li ci xew li ci xew. ak li muy jëriñ ak li muy jëriñ. ëpp na lii may wax ëpp na lii may wax. li ci xew ak li muy jëriñ ak li muy jëriñ. mi ngi ci loxob Alaaji Fallu mi ngi ko téye. lii ngeen def lépp. moom ngeen ko séqal jërë ngeen jëf إله إلا الله لا إله إلا الله مصطفى لا إله إلا الله